internet yi Touba Info ñii nañ leen ziar leen di amaat contentement di jàkkaarloo ak yéen tey nag nekk guddi yonent bi salallaahu taala alayhi wa mu nekk bis bi nga xam ne moom la ganee àdduna di fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu koy defee nag comme ni ko Cheikhul Khadim euh, digle woon njabootu Cheikhul Khadim gi di ko defee noonu ah ñeent xasida yi nga xam ne si ne waxoon na ñu defal ko ko ba tax na sur site internet bii di Touba Info demal nañ leen ci penc yi nekk Touba yëpp comme niñ koy gàmmoo guddi gàmm niñ koy màggalee. yéen téléspectateurs yi nga xamante ne yéen topp site internet bi di Touba Info ñoo ko déggandoo muy euh, tey waajtaay bi nga xamante ne ñu ngi koy am fii ci euh, jumaay Touba jumaay Xaadimu Mustafaa ci biir kër mag moom gi la ñuy dugg ngir fas yéene leen a jottali li nga xamante ne moom mooy programme bi ni mu fay déroulé woo waaye di ngeen dugg fi nga xamante ne moom mooy biir jumaay Touba ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci bi ni ko fiy déroulé woo incha allah rabbi dem sob na yàlla waaye tamit danañ dem ah, ci pentum Serigne Soy bu Mbàkke mi nga xamante ne mi ngi sama ginnaaw ñu xam niñ ko fi ah, niñ ah, waaye tamit dinañ dugg fi nga xamante ne moom mooy ci biir kër Serigne Saliou ak feneen بركة المختار حبدت كوني خديمه وهو نور الكون يمدأه الخديم بالهادات وفاز فيها بمناسبات علمني بديه أن المنتقى في سر والجار على سوي تقى أحمدنا المختار لم يداها mooy di jéem seen kem kattan di dundal guddi gi nga xam ne ku ne xam na ni mu toll ci diine ci lislaam toll ko it ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci la ki nga xam ne moo xettali doomu aadama xettali bi nekk yëpp ci la feeñ jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ni ko du ñu guddal ci nuyoo yi dañuy sox rek fi mu daaneele ginnaaw bi ñu ko santee bu baax itam ubbi ubbi bu rafet bi mu ubbi ni mu ko waxee rek dañuy baaxoo mu jot ñu jël benn tomb boo xam ne dafay laal dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxtaane ko ren nag ñu xalaat xalaat bu am solo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam bi dafa yaatu lool te barkeel lool te bari lool ay waaye ñu gis ne it da Cheikh al Xadim radiallahu anhu ay mbindam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cee am wàccuwaay rëy a rëy waaye koy xool sax li mu bind muy woy muy wesal ginnaaw boo xamee ne kañ yàlla ak sant yàlla ak wane suñu borom mu toll ak fi ñu ko war teg bu jàllee li ci gën a ëpp wàccuwaay gën cee fes mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wane ay jikkoom ak ay meloom ba ñu mën koo roy loolu mooy jubluwaay bi moo tax xam ne yaa ngi seetantal taarifam ak mbindam yi li ngay njëkk a te lu leer mooy fes bu jëmm yonent bi sallallahu sax si yaam bu mu fes ci biir mbind yi ñu sax si boo xam ne jëmm euh, personnage jëmm doo xam ne dafa bari ay wàll yu yu mu yu mu yu mu ëmb loolu nag warul jaaxal kenn ndax lu bari ci li mu bind mbindam mu barkeel bi moom Cheikh Karim moom am na ci lu lu mu jàppee loo xam ne dafa bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mu tuddee ay xasaayid day wax ne xasaayid yi dafa bokk ci mujizaati Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne dafa yeex a ñëw dafa ñëw ci mujj jamono waaye loolu it mën naa bañ a jaaxal kenn bu ñu gisee ne ba tey cër bu duur bu rëy bi nga xam ne jagleel na ko mbind moom yi ngir wane ak leeral lu lu rëy lu bari lu am solo. ci yi nga xam ne sallallahu na ko am na ko ci ay jikko ak ci ay melo yoo xam ne yu mat a xam la ngir man ko cee roy ndax ñu mën a jëriñ xasida jii ñu tànn sax war a ci moom benn bunt boo demee ci biir xasida gi am na fu muy waxee naan tag bi may tagg rasulullahi sallallahu day yulli day sotti ab ensemble maanaam ab mbooloo lu am solo ci ay jikko ak ci ay njëriñ yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làq na wahab lana bi aqibaa il basmala wasiini wal miimi suróoral kammala wahab lana bil baa'i fi daarayni maa yadfaw lo xaarayni wan naarayni wahab lana bisiini saada fi l aali wal aati wa xarxal haada وهب لنا بميمه ملكا يسر وبي يسير daayira Muxaddamatul Xidma euh, guddi gàmm euh, mi ngi ci jotoon ndigal ci jamonoy Cheikh Saliou Mbacké euh, moo leen ci joxoon ndigal kenn ku nekk xam na xamoon na Sëriñ Saliou Mbacké ni mu fonke woon gàmm boobu léegi lañ ko tàmbali waaye nag bi Sëriñ Sidi Muxtaar ñëwee ci atum 2010 jëm 2011 ci la jox ndigal daayira Muxaddamatul Xidma ngir ñu ànd ak daayira Rawdu Rayaahiin di dundal guddi gàmmu fii ci jumaa ji euh, bi nga xamee ne nag euh, am nañ ndigal ci Serigne Saliou ci la ñu ne sagam daayira Muxaddamatul Xidma maanaa dafa nekk ci barab bi nga xam ne mooy xolu dëkk bi di xolu murid yi yaakaar yi murid yi nekk fii kon war nañ lu ñu def lu nekk rek ñu xool li li ca la ca gën a doon bëgg-bëggu sëriñ bi ñu def ko ñu gis na nag gàmm am na nu ko sëriñ bi daa defee loolu tax na ñu dàkk xool bu baax a baax a baax nan la ko sëriñ bi daa defee gëstu ko ba am ci lu leer ñi ci ne sëriñ bi bu guddi gàmmu ñëwee euh, ni mu ko daa dundale mooy li nga gis ñu tàmbalee ko muy alquranul karim daana ci jàng fukki kaamil ak ñaar nga xam ne bum kaamil buñ xat mu jàng beneen moom ngeen fekk ñuy jàng nii euh, suñu noppee boole kook diiwaan yi diwaanu salawaat quraaniya am amda yëpp mu ñu boole kook moom waaye nag ñu ñu sos ñetti kuréel ñetti kuréel yi benn bi kuréelu jës bu lay doon benn bu mu bu benn bu mu xadimat ñoom ngeen gis nii kuréel yi ñu nekk ci kanam ak barsan jii boo xam ne tamit sëriñ bi daana ko jàngalu euh, ndax sëriñ bi xasida koo gis mu mu daa digle ñu koy jàng xamal ne barkeel barsan ji boo ko déggee mooy xasida gi nga xam ne dafay leeral siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fi leer gi di feeñee ba fi mu gane àddina ba nim fi bàyyi bàyyi ko wuy bor wuy ji borom da koy leeral soo xoolee euh, bunt bu nekk euh, ci barsan ji dafay tolloo ak bunt jës bu tolloo ak buntu muwaayib ak mu muxaddimaat nga xam ne suñ jàngee benn buntu ci barsan ji kuréel bii jël jàng fukki bayit ak ñaar mu dëppoo ak fukkeelu guddi ak ñaar muy dus rab awal mu xaddimaat def ko mu waaye bu def ko soo xoolee su barsan jeexee xasida yëpp dañuy jeex te loolu boo ko méngalee ak euh, waxtu wi ñu koy tàmbali dafay méngoo fajar jot maanaam bët set di jot noonu la Serigne Touba daa gàmmoo lan la ko daa booleel muy da koy tàmbali ci parfum yi gën a fort la ko daa booleel muy sikki ak parfon yi libin yi nga xam ne moom la daa jëfandikoo moom ci boppam moo daa ñëw di leen ko sottali boppam moo tax bi ngeen ñëwee ci jotaay bi gis ngeen ne parfum dañ ko fonk lool dañ ko boole ci liggéey bi ndax sëriñ bi da ko def da ko daa def bernde tamit sëriñ bi ci boppam daana jël ay mburu ay gâteau meew ataaya di ñëw di ko xel xellel di ko séddale ñi nga xam ne ñooy ñooy jàng loolu timit ci kanam tuuti su njàng mi tàmbalee da gis ne daayira bi bàyyi na ci xel lu bëree bëree bëree bëri ngir fas ko yéene muy ànd ak njàng bi li ngeen fekk tamit ñu tàmbalee ko dañ koy laytaayee guddi gi ndax xëy na ñëpp dégguñu arab ci Euh, barsan jii bi li mu firi wala jas bu li mu firi wala mooy wala mu xaddimaat li mu firi moo tax Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk xam na ne ni mu melale yonent bi sallallahu alayhi wasallam néewaa nañu ko melale noonu moo tax euh, ñu tann benn tomb boo xam ne tey dañuy jàngat benn bunt ci mu xaddimaat benn bunt boo xam ne sëriñ bi da ci wane melokaanu yonent bi sallallahu alayhi ak ay jikkoom ak ay mbiram ñu tànn Cheikh Mamadou Fadil bu sa Tamba mu ànd ak sëñ Mbàkke Abdourahmane ngir mu jàngat bunt boobu ngir nit ñi jariñu ci incha allah ñi ngi séntu tamit sëriñ bi suñu demee ba fajar Cheikh mun Mountakha war na fee teew ngir euh, jàng ñaan gi suñu noppee tamit insha allah ñaan googu yëpp ñu tefali ci ndox ngir jullit yi képp ko xam ne am nga lu la jaaxal ci sa yaram wala ci say mébét nga saafarawu ci ndax loolu Serigne Touba moo ko wax te noonu la ko daa defee ne wa in xalaa maa in xuri mawlidi xayril basari fa surb bil mu tax fa surb bil mu taxari yëkk fu kay dal marxam suñu jàngee ba bët set ñu jël lañ doon jàng tefli ko ci ndox dana laabal xolub ki ca naan dana ko musal ci ay bakkaar dana ko dana wéral ay jàngoroom noonu lañ koy fas yéene defee incha allah euh, ba bët set euh, ànd koog mbooloo mépp ci biir euh, barsan bi nag suñuy jàngee baax si ci jeexitalu buntu barsan balaa jës boo jël da dégg ñu jàng atrilahuma xabril karim bi arfin sasin min salatin wa taslim nga xam ne Cheikh Mamadou Badi mu Cheikh Mamadou Fadel ak Serigne Afia ñoom ñoo koy jiite su waxee loolu fukk ak ñaar la koy wax su noppee wax allahuma salli wa sallim wa barik alayhi fukk ak ñaar loolu su koy wax mbooloo mépp dañuy àndandoo di aw incha allah nga xam ne dañu bëgg tamit mbooloo mi fi teew yëpp ñu sàmmonteeg euh, teggin yi ak euh, li nga xam ne moom la ñu war a sàmmonteel ci seen i wirdu ak seen i salaatu na nabi incha allah su noonu lañ ko fas yéene defee ngir dàkk ci mbégum sëriñ bi waaye fas yéene màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba bët set bu dee organisation bi nag loolu yaakaar naa xam ngeen diggante daayira Muxaddamatul Xidma ak nos ak organisme loolu moom euh, sagam nañ leen di jëggaani ñu koy defee ji fu ne rawatina fii ñu yor nag muy loolu moo tax nga gis mu mel nii jërëjëf